tubaab day ñëw lii nag beneen kaala mi dama ko ci bërëxal day ñëw war a jël sénégalais liggéey beneen moromu sénégalais ne ko non non non non bu ko fay 1 million 500 ou 2 millions bref je raconte n'importe quoi ou 500 mille xam nga lu ma koy wax fay ko 150 mille fay ko 50 mille c'est pas sérieux c'est pas sérieux nous on est comme ça bëgguñu kenn dem bëgguñu kenn dem te gis nga kuy def lu bon bu xaar am lu baax c'est pas possible. kuy def lu bon bul xaar am lu baax yéen nga yor ay jëkkër loo leen ci gis <laughs> seen jëkkër yéen ko langal xale yi fii ku fi la jëndiwul sa bopp rek doo tal sa alaaji te xale yi lay dem ñu koy kalangaar ngeen naan ko bébé bébé fekk xale bi feral na ko bu yàgg ferotoo <laughs> bébé de feral nañ ko ci mbedd bi dañ koy feral nag lii ya xew kon restez concentrés ayez des objectifs des ambitions battez-vous la vie, vous, vous savez, c'est un combat. Pas contre les autres, non, non, non, mais contre soi-même. contre soi-même chaque jour yaa ngi jug bëgg dem munoo dem sa yaay ngi fi sa papa ngi fi benn nit mooy tekki wala ñaati famille bi yor ñu ñu bëri mais mais revenez sur terre quoi Facebook nekkul àddina man nag ma yónnee sax message portable samay poche xam nañ ko du ma ko sax gaaw a gis sama portable tey laa koy teg saa yu ma mënee laay décroché saa yu ma mënee parce que du mooy am-am du moom ay pompe bëgg siiw du moo may pompé xam nga lu may pompé lu may yàggal ci nit baaxu nit damay nekk sa jaam ku baax rek laa mën a composé baax dafa neex yàlla nañu yàlla mosal ci wax ñu comme nit lañ kese yàlla nañu si yàlla musal na mun nga ko sax kay wax te ko tey mais yàlla si yàlla musal yàlla aar ñu yàlla defal ñu jàmm te ñu bañ a foog ni ñoo gën nit ñi yéen da xam nit ki naka lay wéeteeg boroomam bàyyi leen di jugé nit. bàyyi leen foo ne yéen gën nit li ngeen di wax seen biir kër yi la nekk gestu leen ngeen xool seen mbokk yi xool seen cousine xool seen cousin yi xool seen dëkkandoo yi xool seen xarit yi xool seen liggéeykat yi ñu revenir nag ci sujet bi mooy gis nga mbirum viol bi faut qu'on arrête fii ñëpp xam nañ ni xale yëpp làmbatu na leen ci kër gi mais papa yeeg yaay ñu leen di wax noppi bul salter der bi yàq gu rëy ngeen bokk bu doon yax bu rëy kese Sénégal développé na bu yàgg ndax fii ñëpp baax mbokk kenn ku la yaay bon waaye boo wéetee ku nekk xam nga yow yaay kan hmm. ku nekk xam nga yow yaay kan dañ lay rey ba pare jaale la non mais c'est pas possible c'est pas possible man des dama naan mais non lu way passé le Sénégal noo ko Sénégal pays de la teranga boo leen demee Gambie gii ngeen xam ne seen teranga yemoo te ñaari ñett fan de seen teranga day wéy ba keroog ngay ñibbi ak yeneen dëkk yi pare waaye ñun incroyable incroyable ni ñu mel sax dem ci xew amoon na temps ñu ko doon wax beneen parenthèse en attendant que Feuza ñëw Yacine Imama Yacine est-ce que je peux te prendre non y a anguille roche Yacine mais même si y a anguille sous roche en fait non je vais te prendre tu veux bien xam nga dama see aayu nag may dañ koy compter. Bon, désolé, hein, je ne peux même pas lire les commentaires. Euh, Yacine, écoute. Alors, il y a Coucou. Kan moo bëgg dugg en attendant euh, kan moo bëgg dugg yaa Fina sinon j'espère que tout le monde va bien vraiment di jaajëfal ñëpp di jaajëfal ñëpp vraiment bon malheureusement euh, bon j'attends alors s'il y a Feuza Feuza na ñëw Feuza na ñëw Feuza voilà yaa ngi nii mais yow rek laay xaar si t'es là tu m'envoies un message parce que bëgg naa jël tamit sa sa sa wax. léegi li ma doon wax mooy gis nga problème bu amee da ngay profité waxaale sa soxla c'est très important c'est très important nañ leen gérer suñu bopp gere suñu doom gere suñu vie sinon xam nga luy am nattu te nattu bu ñëwee ñëpp ci dal. bu dee lu baax ñëpp bokk ko bu dee lu bon ñëpp bokk ko nañ bàyyi xiiroo beeg ngaayoo bi ñun bàyyeetuñ kenn du sëriñ si du du du du du kenn kon bi ñu commencé man di dugg sax ci yëfu sëriñ si laa xam ni ñun doy nañ waar tamante dëmm tamante caga ku jug caga nga li ma la xam non mais c'est abusé tellement on est vulgaire après vous voulez faire quel genre d'enfant te ñi nga xamante ne seen doom xamaguñu vulgarité pour yéen seen doom du tomber dans le panneau ah si que mënul nekk ci société bi bu si tey rek tomb ci suba soit ngaaka lay doon wala nekk nàndite kon nañ leen àndandoo defar nga xamante ne nit bi bu baaxee te ñëpp lay baaxal. Toma aí, mouchoir. S'il te plaît, chérie. Un mouchoir. sama xol bi jeex na torop. sama xol bi jeex na torop. waaye nag lenn laa leen di wax. mooy tey am na ñoo xamante ni ce sont des victimes et malheureusement il y aura des futures victimes. alors à vous soyez forts. excusez-moi. Je ne vais pas me cacher pour me moucher. Désolée. Yëfu nit dong la. Bref. Alors, je disais donc aux futures victimes, malheureusement, soyez forts. Croyez en vous. Ne vous laissez pas écraser ou piétiner par l'opinion. Non. Allez dénoncer votre bourreau. waaw loolu mooy yoon ku ñu même bu ñu yeggul ci yow daf lay boole ko boole ko ñi siiw ñi nag nañ xam mais lii xew na ci bureau yi ana patron yi góor ak jigéen nag patron yu góor ak jigéen ñi ñu wëyu wëyu moom amul góor ak jigéen ñu ngi sonn seen liggéeyukaay ñii balaa ñu leen di embaucher ñuy wax promotion canapé du ci seulement ci milieu yu ñu xam déedéet man ma joxaat tamit beneen exemple man défilé naa ba fii man mosumaa dund loolu chaque jour ma wax ko mosumaa dund loolu mosuma kaa sama fas kanam nag du sama baat dara mais mosuma ko dund mais duma ko nga xam ne ñoo koy dund waaye ci bureau yi mu ngi fay xew entreprise yi ñu ngi fay xew lan moo tax tout le temps doo leen seetlu Sénégal doo mës a dégg kenn ku jug porter plainte euh, wala yu demee noonu machin parce que ragal après sax parce que da ngay nekk fii victime ñu toroxal la tooñ la suye la après nga jug population bi tooñaat la suye la ne moo ko def wala dañ maa violé loo doon def ba ñu violé la oh my god lan mooy loo doon def ba ñu violé la. ak lu tax woole woo lu tax yuuxu woo lu tax yow nga bàyyi ba deux mois trois mois mais eh, ku nekk psychologiquement yaa xam ban instant nga mën a jug dénoncer rawatina nag xale bi nga xamante ne dañ ko drogué nga xamante ne ñun dañoo ñaaw njot barki sëriñ Touba bu xale bi ne woon tey lii moom a dañu ne ko yaa fo yaa fo nit ñi jug xutba la ba bu dee yàlla da leen dee loo xam ne deewuñu ko wax leen ñu ko am ngeen fit de qui m'appelle. voilà. oui. bon ñi may woo xam naa moom yëguñu maa ngi direct bloqué naa leen coupé naa leen sax voilà donc je disais que nañ moytu ñu def nànk parce que li xale bi dund nii imagine ñaata nit ñoo koy dund ci suuf nañ bàyyi dégg tëll rek nga damm na il faut qu'on arrête tey kenn nag boo nitee boog boo nitee laay wax de waxuma la mankan kunkan yi nga xamante ne dara safu leen bëgguñu Sénégal yoonu Séné du ñu sax bëgg daray Sénégal safu leen man taxu ñu may wax ñu sax duñu ma sax sonal man ñooñu ñu may wax mais damay wax les personnes sensées ba pare comité yi nañ jug jàppale xale bu jigéen bi ñi nga xamante ne jug nañ ba bébé si sànq je l'ai eu téléphone dama gis postam elle songage ak keneen ak keneen bu ñu ŋàññi kenn parce que lu baax ku koy def danga koy def ci kaw mu leer na bébé si ñëw wala keneen mu ñëw mami ko ku nekk mu ñëw ñu mën ko jàppale parce que imaginez sa maman comment lan la war a subir ba nit ñi ne ko waaw doo dem ti mbedd mi di weer sa bopp fii weerante amu fii te gis nga nit bu la bëggee même nekkoon sax yaa def yaa foowee sa bopp ba ëmb du la yàlla may ñu nekk avec des personnes qu'on enfin yàlla may qu'on soit bien entouré gis nga nit bu la bëggee mu def erreur doo ko boo ko waxee ci mbedd mi danga ko xas euh, ci kanamu nit ñi da ko xas man sama xarit man Aby Ndoye tey bu defoon erreur ñëpp taxaw du ma ko mësa ne yaa am toor du ma ko def waaye bu ñu wéetee danaa ko xas wax sama dëgg yoo xamante ne xas xas laa koy def waaye bu nit ñi toogee damay sagal sama xarit yëkkati ko ci kaw waaw. loolu mooy loolu mooy loolu mooy baax waaye léegi xool leen xale yi jigéen ñi seen biir snap bi saa yoo xëyee lu tax xooratuma sax ay snap yu bari saa yoo xëyee euh, oui jë nee na gaaruwaal nee na leen noonu. te du ñu am sax noon nag ñoo koy utal seen bopp ki am noon wala ñu def ko lu ko naqari toog na 9 mois doomam juddu cinq mois xaw ma 4 mois si je me si mu toog ne pat ak organiser lu tax pour yéen loolu lu tax parce que xam nañu on est des beaux parleurs waaw ñun Sénégal léegi noonu nañ mel moo tax ay caret ay caret jooy guñu sax. fii président bu baax sax mu munul defar dëkk bi parce que population bi ñun ñoo am góom ñun ñoo am problème problème bi nag man xaw ma ban 1900 la commencé man tout le temps je me pose la question parce que quand j'étais quand même assez jeune mais il y avait pas ça il cette animosité ban ba ban air la xaw ma internet bi la xaw ma wax jee bari xaw ma mais comment en fait à quel moment à quel moment on est devenu aussi fané man loolu laa bëgg a xam à quel moment naa ne tey tey dama mer ba Serigne Touba Binta Thiam Thiam Babel maa ngi lay nuyu bon bu nekkee am na ko mën a ñëw quand même parce que wax ji sax mënoon na fi yem ndax ñëpp déggante nañu xamante nañu waaw mun nañ bañ a bokk gis-gis nag mais duñu ay noonu voilà ñàkk bokk gis-gis warul tax tey xiiroo beeg ñaayoo bi yu demee noonu yépp non nañ ñëw euh, ma jël ñoo xamante ne ko waxul ci sujet bi nag dama lay dama lay supprimer en fait voilà ngeen baal ma quoi ci sama franchise mais euh, voilà. ut <clears throat> naa xam nga looy wax ne dugg fii loo fi wax day dugg génn <laughs> alors Soukeyna j'espère que ça va Kenza mais qui veut rentrer qui veut venir en ligne euh, tac demande ok terminé <laughs> Mon bébé Ndak Ça va, ta connexion est bonne Ouais, ça va. mais namm naa la noo def ak seddaay bi ma ça va tu vas bien <laughs> maa ngi si seddaay bi euh, ah, euh, kii bi ce non non dama lay bàyyi après damay introduire ma bàyyi la nga exprimer wu parce que ce matin quand même on a eu à échanger pendant trente minutes et c'est à cause de toi d'ailleurs que je suis pas ak ñi naan pepe kale reefaan pep dama koy dagg foofu ak d cent DKR 221 ku bëgg am lu leer ak yu bees tàkk aboneel ci DKR 221 ma fekk la faag 221 dooleel la ko ci dama ne sama gaay yaa xam koor gi tabaski bi.